ñu leen di baal wax di ñaan yàlla seen taxawaay bi yal na ko yàlla gis yàlla na leen ko yàlla fay eh, man duma ciy wax sax lu bari waaye li may wax mooy balaa may wax sax ci premier ministre wala président damay wax ci Youssou Abdallah doomu aadama day fonk boppam loo mën a doon ci këru àddina ca fonkoo sa bopp doo dara nit day fonk boppam doomu aadama doomu aadama rek la mën a doon ak grade boo mën a takk ci këru àddina doomu aadama rek ngay doon mënuloo ko weesu ak boo mën a am nag waaye nit ki fu mu yàgg rek moo fa yóbbu boppam te yuusu lii yëpp yow la li yëpp yow la nga wane ne yow artiste international comme Doudou Ndiaye Rose damay ñëw rek daal di ko jaale daal dem sama yoon mais déedéet da nga def ni nga toll sa askan nga bëgg nit day yëg boppam da nga yëg dara jiy daw ci yow moom nga yëg xam ne yow yaay Doudou Ndiaye Rose liy daw ci yow mooy daw ci Doudou Ndiaye Rose nga yëg sa bopp Bamba noonu la ngeen jóg taxaw ngeen taxaw ngeen taxul seen papa mais mais loolu loolu foor na li ngeen def dafa foor man waxuma ko pour flatter leen parce que man xëy na peut-être li ñuy daje bariwul mais man dama nekk nit koo xam ne lu nit def ci lu baax ma wax ko parce que yàlla rek laa gëm parce que loo wax ci kaw suuf daa ko wax ci kaw biir bàmmeel kon lu nit di wax rek na wax te yàlla tax bul wax lu dara lu neex doomu aadama te yéen nit ñeen ngeen nga xam ne li may wax nii dëgg la parce que yéen ko jëfe ñu nag yéen la bi mu dogee ba tey waaw lu ngeen bëgg duñ ko wax waaye ñun mënuñu leen fay teraanga ji ngeen fi def dafa bari waxuma tax teraanga ji loolu neex na ba pare mais yëg bi xam ne ñun yooyu yéen yéen yéenay ñun yéen yéenay Toune Thiaroye Youssou kàcca ngalaama Bamba ndax ma yàlla na yàlla fay ñun mënuñu leen de mu ngi leen ko xaar ci ñun nag parce que lii dafa foor mënuñu leen ko fay mukk wàllu mi am fay yàlla leen yàlla fay man li may wax dama koy wax ci askanu Doudou Ndiaye Rose njabootam yëpp am di jàmmam yi yëpp ñoom laay ñoom que samay rak dañu ma jël ne ma ñoom may man maay seen porte parole ñoom du ñoom du ma seen ñoom maay seen porte parole dëgg mais ñoom ñoo may ñooy samay sang man maay seen jaam sama rakk yi ñooy samay sang muy jigéen comme muy góor man maay seen jaam ku leen laal rek laal ma ku leen laal ak koo mën a doon nag ma laal ma man parce que ñoom rek laay nooyu man maay seen jaam ñoom ñooy samay sang kon buñ ma sargalee ne ma ñëw yaay wax dama ciy bëgg yàlla nañu yàlla fay yàlla nañu ëpp suuf seen baay seen baay ay ati ati ati at premier ministre jërëjëf jërëjëf ñëw nga ci suba ñëwaat ci ngoon da ngeen ñu bëgg rey da ngeen ñu bëgg a rey xanaa teraanga ju ëppee nii bu ëppee musibaam parce que nit ki dina dem ba yëg loo xam ne ci boppam dootu ko mën a téye